salaamaaleykum chers téléspectateurs de la RTT TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di profito ci occasion bi di balloo sénégalais yëpp ak di leen baal ak di ñaan yàlla Sénégal yàlla gën fee yokk jàmm tey jii nag vision politique mi ngi dalal. Monsieur Ibrahima Amidou Dem nekk leader du parti éthique ensemble pour le travail l'intégrité et la citoyenneté nekk membre ci coalition Aar Sénégal nekk aussi candidat à Thiès pour les élections législatives du 31 juillet 2022 nekk ancien procureur nekk aussi avocat à la cour pénale internationale maître ñu ngi lay nuyu ci la jaajëfal ci dalal bi ñu dalal. waaw soxna Awa Fall. Mhm. maa ngi lay remercier ci invitation bi. Mhm. di remercier aussi waa RTT TV mm. euh, muy télévision boo xamante ni tayaru Thiès euh, ak Sénégal mën nañu wax mm-hmm. yéen ko teg muy une excellente initiative euh, di profiter ci occasion bi di ndokkale sénégalais yi à l'occasion de la fête de la Tabaski di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal fi jàmm yàlla yokku ñu sutura yàlla aussi may ñu ay njiit euh, yu baax njiit yuy jëriñ réew mi ba métit yi ñu fi am yëpp euh, peut-être lépp mënuñu wan gannaaw mais lu ci gën a bëri wan ñu gannaaw. merci beaucoup. Euh, daanaka juge dem nekkut juge dem bala avocat nekkatul ku ñuy présenté fii ci Sénégal mais juste dañoo bëgg a dellu en arrière un ci parcours juge dem ba ci démission bi bëgg nañoo xam daal de façon ramassée. nan la processus bi demee. waaw man justice lu ma ci dugal mën naa ne hasard la. Mhm. dama koy wax du loo xamante ni dama ko tànnoon euh, nekkul woon métier de rêve. Mhm. ñun ñu ngi màggee ci jaxaw kanda benn quartier boo xamante ni dañoo jege woon camp militaire bi bi ñu nekkee xale fa lañ doon fooweeg yépp mhm. donc ñun ñëpp euh, début bi bi ñu nekkee xale. suñu rêve moo doon nekk militaire. Mm-hmm. waaw ñun nag xam naa rêve boobu euh, dama am benn grand frère mi militaire mu demoon Libéria affaire yi metti foofu mu metti ci mer bi. Mm-hmm. man daal ci laa euh, ci la mu mbirum militaire mm-hmm. <laughs> euh, neexatul. donc man bi ma amee bac dama doon wut rek benn benn métier boo xamante ni dana ma assurer emploi benn concours. Euh, initialement man foofu histoire laa bëggoon histoire euh, la moo nekkoon sama passion mais année boobu année quatre-vingt-quinze euh, ci lañu ñu ne ENS léegi assuré tuñu l'emploi waaw dañu lay former ba nga génn léegi nag y avait le cycle B de l'ENA de l'ENAM ma def ko yàlla def juróom la ñu woon ñu jàll ma jàll année boobu greffier la woon ma nekk greffier xamuma woon sax bu baax lan mooy liggéey greffier ma liggéey ci biir justice nag ci laa commencé am amour justice waaw parce que greffier mooy assistant wu magistrat waaw ma ma bëgg ko ba yàlla def ma def euh, concours euh, magistrature bi euh, balaa ma ko def sax ñaari weer avant dama admis woon concours ENA mm-hmm. cycle A ENA Euh, mais après man bi ma amee magistrature bi ma bàyyi ENA bi jël magistrature bi. loolu la woon léegi ma dugg ci magistrature en 2005 ma exercer les fonctions de juge benn année après ma nekk procureur euh, ma yàlla def tamit magistrat yi wóolu ma ba ma nekk. Euh, secretaire général de l'Union de magistrats sénégalais mooy organisme professionnel entre 2009 et 2011 par la suite euh, ma nekk aussi membre du conseil supérieur de la magistrature mooy ëtt bi nga xamante ni ñooñu ñooy taxawal magistrat yi ci fiñ leen di affecté ak fiñ leen di àtteeg yooyu euh, ñu wóolu ma ñu ñu fal ma ci loolu magistrat yi la ciy fal bon mais foofu yàgguma fa mandat quatre ans laa amoon mais bi ma demee gis ni euh, ni muy doxee man mënuma def foofu sama liggéey comme ni ma ko bëggee ma démissionné fa bi ma defee juróom-ñaari weer ma démissionné fa après bi mu amee at ak genn wàll bi ci teg ci laa génn magistrature bi ma ciy génn tamit euh, xaatimoon naa benn bataaxal bind lettre wax lu tax man ma démissionné magistrature parce que principalement mm, justice mënatul def liggéeyam normalement parce que exécutif mooy def ay pression ci kawam te tamit ci biir magistrature am nañu ay chef yoo xamante ni ñoom tamit dañoo tëdd loolu principalement moom moo doon lettre bi léegi nag bi ma ci génnee ma ma engagé wu en politique. engagé wu en politique dinañ ci dikkaat léegi maître beneen question bi moo nekkoon ndax nekkoon ci benn magistrature bi xeex li ngay xeex gënul woon yomb nga génn nii lii dafa mel ni daw laa ko mën a waxee. waaw nit ñi mën nañ ko interpréter noonu parce que mm-hmm. en fait. ñu bëri ñu ngi naan ni euh, resté woon ci biir di xeex moom moo gën. man en 2015 dama bind benn lettre nee naa la 2005 laa dugg magistrature 2015 ma def fukki at. am na benn article dama bind benn article bind ko journaux yëpp gis ko ma ne yan changement lañu ñu war a mën a def pour magistrature bi am indépendance xam nga mësuñu gis magistrat bëriwul bokk. Mm-hmm. buy jël di bind lettre publique. boobu li ma ci waxoon ci début bi mooy fukki at a ngi nii ñuy xeex ci biir mais xeex bi ñu xeex ci biir amul benn njëriñ gisuñu njëriñ bi léegi nag looloo tax nag ñun wax bi il faut que ñuy jottali ko sénégalais yi waaw parce que ci biir ba tey nii am na ay magistrats yuy xeex maintenant nag xeex bi ñaari mbir a mën a am mooy xeex bi am lu mu jur su ko juróon ñun amul benn métier beneen bu ñu gënal magis magistrature. Mhm. duñ ci génn mais soo xeexee te magistrature am na soxna Awa loo lu ñu war a xam. Mhm. dafa am lu ñu tënk ñun ñun xeex yooyu ñu doon xeex kenn mënu ci xam dara. Mhm. parce que ñun amuñu obligation wax même bi ma bindee article boobu euh, jeu d'équilibre lay nekk. parce que nit ñi mën nañ la ne ah yow violé nga say obligation professionnelle parce que magistrat warul wax yaa ngi gis. Mm-hmm. man bi ma njëkkee démissionné euh, conseil supérieur magistrature dama dama def lettre boobu ministre bi bi fi nekk dafa ne woon kii nañ ko topp parce que warul woon su démissionné bind lettre. yaa ngi gis donc loolu moom mooy jafe-jafe bi magistrat yi ñu ngi xeex ci biir mhm. am na ñu bëri ñu nekk ñu xeex mais xeex bi public bi mënuñu ko yëg parce que ñoom dañoo am lu ñuy wax obligation de réserve mhm. ñoom waruñu exprimer seen opinion comme ñeneen yi mhm. léegi nag soo demee ba xam ni man fii la sama sañ-sañ la yem man mënatuma dépasser fii ñaar rek a mën a nekk mooy nga rester ci biir di continuer nga xam ni que mënuloo atteindre ses limites wala nga nga nekk ci biir tamit violer say obligation professionnel te man bugguma violer la loi parce que su ma nekkoon ci biir di def comme ni may def nii loolu du ma nekkati magistrat parce que may magistrat dafa am li ko tënk moo tax ma décidé ma ne lu ci lu gën mooy damay génni mais damay continuer xeex bi te su nekkoon ni man magistrat laa ba tey li ngeen am ni du ngeen ko am mm-hmm. parce que magistrat amul sañ-sañ boobu donc mbir mi daal loolu la. jërëjëf ci tontu bi leer na nañ léegi dañuy ñëw ci camp comme campagne bu ubbi na ñu wax ci processus électoral bi nag nga gisee processus électoral bi. waaw processus électoral bi xaw na doy waar. Mm. Euh, gis nañ coow li fi am yépp coow li nag euh, euh, coow li dafa doy waar dafa remetre en cause benn. processus boo xamante dafa bëri formalisme man gis nga élection mairie yi ñooy première élection yu ma def euh, en tant que candidat may superviser un peu suñuy liste yi nu ñu koy defaree waaye li ma gën a frappé mooy formalisme bi ci nekk dafa bëri formalisme soo xoolee élection mairie yi euh, ñëpp ñu ñu investir ku nekk sa dossier. Mm-hmm. ku ne dafa am dossier war ko signer war ko remplir def déclaration de candidature ak yeneen ak yeneen dafa diis dafa diis soo ci tegee mbirub euh, euh, parrainage nga teg ci dele yi dafay doy ak ay caution yeneen ak yeneen suñu processus électoral dafa diis dana baax suñu jógee ci élection yi ñu càmbaraat ko xool nuñ koy mën a def ba mu gën a oyof ba mu gën a oyof ba mu permettre li nga xamante ni constitution bi moo ko garantir mooy la libre participation des citoyens aux élections parce que loolu principe constitutionnel la waaw léegi nag mënuñu tamit tijji ba ñëpp élection ñëpp mënuñu ci nekk loolu aussi nañu raisonnable mm-hmm. man d'accord naa ko ay filtre am mais filtre yi mën nañ ko defee de telle sorte que du nekk gàllankoor ba lii ñu gis ci nii mu am. parce que lu ñu gis mooy ñaari coalition yoo xamante ni pratiquement ci ñu ëppoon taxawaay ci ñu ëppoon doole la. sooy xool élection yi passé ñenn ñi ñoo jiitu ñeneen ñi topp ci mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition Yewwi Askan Wi. mais ñoom dañoo dem ba ci biir ku ne ci ñoom ñëpp xam nañu dañoo am ay jafe-jafe ci seen établissement liste. donc wane na ni war nañu jéem a xoolaat mbir mi ñu jéem ko oyofalaat ba processus bi nekk loo xamante ni dana inclusive waaw loolu daal euh, ci réforme yu ñu war a def ci ci la war a bokk. Hmm. dañuy des toujours ci Yewwi ak Benno Bokk Yaakaar gis nañ conseil constitutionnel validé na seen liste yi partiellement. maanaam validé na bii liste suppléant yi bii mu validé liste titulaire yi est-ce que yoon la woon conseil constitutionnel validé partiellement ci bu ñu déggee ci suñu xam-xam bu gàtt ne ñaari list yooyu nekk na liste yoo xamante ne kenn mënu leen a li nga wax li man <clears throat> loolu mooy sama interprétation en tant hmm. parce que xam nga droit dama koy jàngale damay wax chaque fois étudiants yi. ñii ñii defar droit ñii defar code yi ñii defar loi yi logique la ñuy topp dara loo xamante ni xel mënu ko nangu rek jëm leen xool ni droit mooy lu jub. droit mooy lu jub yoon dañuy ne yoon fu nit ñi war a jaar warul nekk lu dëng walla lu compliqué ci xel. te dañuy naan le bon sens est la chose la mieux partagée euh, xam nga léegi da nga wax wax bi. dañuy ne liste liste ñaari pàcc la dafa am ay titulaire ak ay suppléant liste titulaire yi liste suppléant yi loolu moom mooy former benn liste ñu ne liste bi benn la list bi c'est indivisible mënuñu ko diviser ne bii ak bële parce que titulaire yi dañ fee nekk dafa mel ni équipe football ñu ñëw ñu ne équipe bi lii la ñu ne suñuy dem tel nombre de joueurs ñoom ñooy nekk ñoom la ñuy aligné. ñooy partant yi. la ñuy aligné nombre de joueurs mooy nombre de joueurs yi ñëw di dugg ci terrain bi. Mm-hmm. di dugg soo gisee hymne yeeg suñu bala ñoo def am day am ñeneen ñuy toog banc remplaçant ñooñu ci lañu bokk. Mm-hmm. parce que ku gaañu wala euh, nga sonn wala euh, euh, ñu ñu war laa remplacer ñeneen ay dugg. Mm-hmm. te doo gis par exemple match boo xamante nañ ko def ba mu jeex te du am remplaçant. Mm-hmm. remplaçant yi ci équipe bi lañ bokk. mu musuñu gis match boo xamante ni remplaçant kese. Mm-hmm. mooy jouer parce que remplaçant yi ci football suñuy jouer duñu sax mot. benn bi ñaareel bi moom mooy donc loolu mooy équipe bi. d'ailleurs suñu gañee suñ leen di suñ leen di récompenser ñëpp la ñuy récompenser tous les vingt deux joueurs. Mm-hmm. donc loolu mooy équipe bi léegi léeg équipe la dafa indivisible mënuñu ñëw ne fii li nga xamante ni njuumte bi ci titulaire yi la nekk nañu dindi titulaire yi bàyyi suppléant yi wala njuumte bi ci suppléant yi la nekk nañu dindi suppléant yi bàyyi titulaire yi parce que noonu la conseil constitutionnel la àtte ñun jàpp nañu ni àtte boobu. yennuwul maana àtte boobu teguñu ko ci yoon teguñu ko ci logique li waroon am moom mooy liste yi ñépp xam ni ko baaxuñu muy liste benn bokk yaakaar ak liste Yewwi Askan Wi mais ay liste nationale la mooy sur les 165 députés 53 yi ñoom waruñu woon bokk ci loolu waruñu woon am liste nationale loolu nag terewul ni ñoom mënoon nañ dem sax ba gagné élection parce que sooy xool sur les cinq ñoom war la woon leen woon dese 112 sur les départements ci département yi. maintenant dañoo gis ni peut-être état bi gis na ni ñoom. fi ñu lajjee ci ci remplaçant yi la. te suñ dindee remplaçant yi ñoom seen titulaire. du du du indi problème ñële ci ci ci titulaire yi la te titulaire yi suñ leen dindee dafa mel ni liste bi euh, du amati solo donc looloo tax ñu valider ko parce que décision boobu amul benn cohérence li waroon am conseil constitutionnel su amoon courage dëgg man wax naa ko waxaat ko ñaari list yépp lay dàq parce que ñaari liste yi baaxul du ñun ñoo ko wax. du waa conseil constitutionnel ñoo ko wax mais ñoom ñii composé liste yi ñoo wax suñu liste baaxul te loolu sénégalais yépp xam nañ ko. léegi est-ce que du moo taxoon conseil constitutionnel à gérer ainsi. non euh, mbirub droit amul ay bañ coow. Mm. amul compromis compromis ay compromission lay indi coow parce que ay règles la ñu teg règles yooyu sooy xool début bi vingt cinq listes moo am. ñuy éliminer di éliminer di éliminer ba mu des huit huit yooyu la ñu ne yéen déposé leen seen candidature kenn jàppul woon ni parce que nit ñi fi ñu jàppoon ni fa la nit ñi di lajjee fa la ñuy daanoo mooy ci caution beeg surtout ci parrainage bi gis nañ parrainage bi am na ay liste yu mag ay nit ñoo xamante ni xamee nañ leen woon xarañ ak mais jàll jàlluñu parrainage bi waaw maintenant ci établissement liste yi ku ci lajj parce que ay règle la règle mënuñu ko teg ñu dem ba en cours de jeu par exemple ñu ñëw exemple football bi ma jël léegi ñu ne règle yi lii la ñu ñëw ba football bi commencé ba ñu nekk ba ci biir ñu ne ah déedéet parce que équipe bii ñii dañoo bëri problème dugal nañ leen bii mais nañ ko annuler pour ñu mën a maslaha pour euh, coow doom déedéet loolu. loolu bu ñu xoolee ci Sénégal tamit Sénégal noonu lay noonu lay dee. loolu nag la ñu war a dindi ci Sénégal maslaha bi. Mm-hmm. maintenant nag xam nga parfois justice loolu moo tax may naan gis nga indépendant justice lu ci gën a am solo mooy confiance bi nit ñi war a am xam nga justice su doxaloon nu mu war a doxalee depuis longtemps ba nit ñi am ci moom kóolute mooy mm-hmm. confiance mm-hmm. su demee ba jafe-jafe yi am su tranché sax kenn du wax dara parce que nit ñi dañuy jàpp ni justice bi justice bu moom boppam la justice bu tëddee njaaxaanaay la maintenant jafe-jafe yi am rek moom mooy justice bi fu mu toll nii nit ñi wóoluwuñu ko parce que décision yu mu yàgg rendre da rendre muy euh, au service dafa mel dafa nekk au service de l'État au service des politiques au service du président et au service du gouvernement. justice sénégalaise. waaw justice sénégalaise loolu nag moo tax nit ñi parfois justice bi dana am sax ay décision yu mu rendre fekk nii teg nañ ko ci ci ci yoon. Mm-hmm. mais suspicion boobu manque de confiance boobu. Mm-hmm. moom mooy tax nit ñi bañ bañ koo wekk bañ a respecter décision yi. ci décision justice yi lan moo tax nit ñi ba fan la justice fayiree ndax mënuñoo jàpp ni bu justice tranché foo xamante ni sa côté la jëm nga ni gongo bu trancher foo xamante ni arrangé wu la nga nga nga salfaañe ko nga ni justice Sénégal indépendant wul sur quelle base. waaw xam nga loolu laa lay wax nii xam nga sooy xool élection locale yi passé hmm. nit ñi bàyyiwuñ ci xel amoon na foo xamante ni ay préfet hmm. dañoo invalidé woon ay liste justice moo ñëw rétablir euh, notamment liste Mbour liste Yewwi Askan Wi Mbour ak yeneen liste opposition yoo xamante ni ay maatam ay feneen ak feneen justice moo dem rétablir ko mm-hmm. loolu lu amoon solo la parce que justice amul habitude di di di àtte au profit de l'opposition mais loolu nit ñi dañ koy teel a teel a fàtte parce que en fait lu ñu tàmmal lu ñu tàmmal depuis le début mooy ñoom décision ci euh, euh, dañ koy rendre rek au profit du gouvernement. Mm. waaw looloo tax nag euh, parfois nag nit ñi aussi danañ ci profiter nit ki nekk opposant mm-hmm. dara dal sa kaw wala ñu toppalaak yooyu nga ne justice bi indépendant wul mais loolu justice moo war a rétablir la confiance ñu demee ba confiance am totalement. Mm-hmm. ñu wane ni tëddee nañ njaaxaanaay dëggantaan foofu lépp lu ñu rendre rek nit ñi dañu xam ni ñii seen liggéey la ñu def. Mhm. lii kenn warul am loo ci wax. léegi comment rétablir cette confiance. rétablir confiance bi ci ci ci ci parce que damay naan la justice ne doit pas toujours euh, doit être indépendante mais elle doit paraître indépendante. Mm justice bi dafa war a moom boppam mais dafa war a wane ni dafa moom boppam wane ko. ci ay décision ñu gis ni lii la président bëgg mu leer nañ justice bi ñoo wane décision wane ni que ñun ànduñoo ñun ñun dañ fee nekk nekkuñu au service du président mais dañ fee nekk au service de la loi loolu suñ koy wane ci ay décision comme ni ma waxee woon ni élection locale gis nga décision bi ñu bi bi bi bi ñu rendroon ñëpp gis nañu ni que décision bu amoon solo la mhm. suñu continuer woon ci lancé boobu par exemple suñu rendroon bii élection yii ñëw woon ne ñëpp xam ni liste Benno Bokk Yaakaar ak kii baaxul. ñu ñëw annulé ñaar yëpp ne ñaar yëpp baaxul foofu danañ xam ni wax dëgg yàlla justice bi mu ngi commencé am indépendance am confiance ñu retrouver ko. loolu est-ce que du nekk catastrophe politique. pour lan. liste élection yu yeewi amut. ak benno ñaari entité yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci Sénégal fi mu ne. xam nga sànq maa ngi lay wax ni. Mhm. sur 165 députés. liste majoritaire yi 53 kese lañu donc nit ki mën na bañ ñoom ñaar mënoon nañu bañ a dem ci liste proportionnelle nationale bi. mais terewul ñu gañe parce que département yi ñëpp presque ni ñuy élire ñëpp ci département yi lañu la ñu nekk. nit ñi aussi dañ koy réere mbir. mais loolu sax su amoon. Mm. mais ban catastrophe lay am parce que da ngay teg règle règle yi ku ci teguwul. da ngay da ngay da ngay <laughs> da ngay wu parce que loolu tamit état aussi dañ dañ loolu dafa am solo xam nga amul kenn ku indispensable kuy topp yoon rek moo fi nekk du ñu taxaw naan eh Ablaye euh, Macky Sall de warul mën a bokk ci élection Macky Sall su fekkoon ni parrainage am baaxul dañ koy éliminer parce que parrainage am baaxul. su fekkoon justice moom na boppam. xam nga mais nit ñi dañoo dugal seen bopp yi ni loolu mënul nekk. wala tel yeewi warul bokk ak yooyu yeewi su respecté wul la loi su teguwul ci yoon dañ ko war a parce que la loi elle est générale et impersonnelle loi bi defuñu ko ne loi bi Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu def ko wala yeewi wala Aar Sénégal wala keneen dañ ko teg képp ku tegu ci loi bi yoon bi yaa ngi ci mhm. képp ku ci génn génn nga yoon bi dañ lay éliminer loolu moom mooy démocratie loolu tamit ñun tamit suñu mentalité yi. Mhm. war nañ dem ba yegg foofu. Mhm. jërëjëf léegi dañuy ñëw ci liste département Thiès yow lañu investir ci coalition Aar Sénégal naka la investiture yi di doon demee. waaw man man investiture euh, euh, euh, Thiès bi man c'est choix. xam nga am na ñu bari ñoo xamante ni ci liste nationale la ñuy nekk ma koy wax man maa tànn ñëw Thiès. man Thiès mooy sama base jàpp naa ni euh, coalition pour mu am doole leader yi dañoo war a dem ci département yi département yi yombul mm-hmm. waaw euh, politique nag dafa am benn dose boo xamante ni dose courage la nga dem mu wóor la ni dana jafe lool lu gënoon yomb moom mooy nga nekk ci liste nationale waaw mais soo nekkee ci liste nationale yi peut-être ñeneen yi ñooy liggéey ci département yi loolooy loolooy loolooy jur ci liste nationale man sama position d'abord moom moo doon leader yi nañu dem ci département yi waaw am nañu ñu dem ci département yi ñeneen aussi jël choix dem ci liste nationale bi donc man Thiès ñëw naa fi euh, janvier bi passé ma nekkoon candidat à la ville bon euh, gagné wuñu certes mais am na liggéey bu am solo am nañ percée bu ñu def ñu bëgg nag liggéey boobu ñu continuer ko parce que homme politique da ngay am sa base donc ñun fii mooy suñu base fii la ñu bëgg a liggéeyal légitimité bu ñu am ci politique ñun dañoo bëgg mu jóge ci cees <laughs> te jàpp nañu ni am na liggéey buñ ci war a continuer loolu moo tax ñu choisir euh, nekk te de liste départementale Thiès. léegi nga war a campagne. Euh, ci sa wet am na say concurrent politique yu ci mel ni biram Souleye mi nga xamante ni moom lañ investir Yewwi ak euh, Augustin Tine mi nga xamante ni moo nekk Benno Bokk Yaakaar ban stratégie nga jàpp jàpp ni boo ko tegee di nga mën a euh, gagner élection yi waaw euh, ay concurrent lañu mm-hmm. comme ni nga ko waxee parce que ñun am na peut-être ñeneen ñoo xamante ni xamee wuñ leen ni ñoonu mm-hmm. je pense que sur les huit listes ñëpp am nañu ay candidats Thiès mm-hmm. Euh, donc amul kenn kuñ ci xeeb amul kenn aussi kuñ ci jàppee ni mënuñu la euh, baat décision bi ci Ceesuwaay lay jóge Ceesuwaay nag aussi ñoo war a xool parce que élection locale yi passé li mu wane mooy nit ñi dañoo voté utile euh, am na ñenn ñoo xamante ni dañ leen voté sax xamuñu leen dañoo nekk ay maire parce que élection bi bi passé lu ci intéressant on moom mooy c'était la première fois ñu def élection mairie élection municipale au suffrage universel direct mooy su ñuy dem ci élection yi xam nañu ni tête de bi moom mooy nekk maire. donc nit ñi dañoo waroon tànn maire mais ils ont plutôt soo gisee vote bi ni mu demee dañoo def lu ñuy jàppee ni loolu mooy vote utile ñu voteel coalition opposition bi ñu jàpp ni moom mooy gën a am chance pour gagner. jéemuñu xool ñu nekk ci liste yeeg yooyu alors que élection ay personnalité aussi ñoom ñooy ñëw taxaw ay nit ñoo xamante ni niñ leen war a tànnee du ni bii parti la ñu nekk wala bële mais ñii lan mooy seen crédibilité parce que politique Sénégal lu mu soxla fu mu toll nii mooy crédibilité nit ñu jub maandu wane mbëggeel seen askan wane tamit ni lii ñuy bëgg jot mën nañ ko liggéey crédibilité boobu jàpp naa ni lu ama am solo la képp ku ñu teg war nañu xool yow lan mooy sa parcours waaw fan nga jaar lan nga def euh, lan mooy sa crédibilité te crédibilité aussi lu ci gën a am solo mooy homme politique bi ñu koy natt kii lan la waxoon daaw lan la waxoon daawati géej est-ce qu'il est cohérent il est constant mu ngi sàmm ay kàddoom ak yooyu donc loolu il semble que jëluñu ko en et jàpp naa ne élection yi danañ ko jël en leneen li moom mooy am na ñoo xamante ni ils sont déjà maire man su ma nekkoon maire du ma présenté wu député. parce que su ma laajee baatu askan wi ba ñu jox ma ko nee ma gérer mairie liggéey boobu doy na ma sëkk ñeneen. war a dem nekk député ñeneen war a nekk ministre mhm. lu ñu wax cumul des mandats man gëmuma ko pour man démocratie ku ne liñ la jox doy na la sëkk man dama am sama liggéey avocat mhm. maa ngi koy def à l'extérieur danaa liggéey aussi parfois consultant loolu sama liggéey la loo xamante ni pour may tedd pour lu ma dundee mhm. pour lu ma suturloo su ma ci tegoon liggéey mairie walla député bi ma am doy na ma duma dem di wut beneen parce que cumul des loolu aussi lu ñu fi war a jële la donc ñun jàpp nañu nii wax dëgg yàlla euh, loolu c'est par rapport à Yewwi laa koy wax parce que ñoom laaj nañu mairie yi nañu commencé prouver nañu commencé nit ñi nañu xool fii ak 7 mois 8 mois yi lan la ñu liggéey ñoom tamit lan ban différence moo am est-ce que nit ñi sentir nañ ci ñi waa marché central est-ce que gis nañu différence yaa ngi gis ville bi est-ce que gis nañu ni différence parce que euh, huit mois war na am lu feeñ. Mm-hmm. est-ce que ci doxalin yi am na changement dëggantaan loolu aussi war nañ ko xayma. leneen li mooy ñi fi nekk mooy waa Benno Bokk Yaakaar man jàpp naa ni ñooñu moom waruñu wax sax seeni wax nekk nañ fi fukki at. Mm-hmm. ñoo nekk ci état bi ñoom ñoo nekkoon ci mairie yi même su fekkee ni Thiès ñoom mosuñu ko gañe mais ñoom ñoo nekkoon ci mairie gis nañ lu lu ñu liggéey ci mairie yi député yi fi nekkoon yi nga xamante ni ñoom ñoo gañe woon département bi député yooyu est-ce que Thiès waay xam nañ leen man de yàlla xam na ni musuma dajeeg benn député bu ñu ma ne kii mooy député benn Bokk Yaakaar te député moom mooy kii nga xamante ni dafay représentant département surtout ñi nga xamante ni département bee leen investir ñu war a toog xam jafe-jafe yi di nemmeeku yéen ñi nga xamante ni ay professionnel ngeen tailleur est-ce que mën ngeen benn moment jafe-jafe yi ngeen amoon avec la rek yooyu gis ngeen ñoom yéen yéen seen député ñëw ñëw taxaw parce que yéen a leen jox seen baat ñoom dañoo ñëw élection munici euh, euh, euh, législative mooy jox leen ma seen baat ma représenté leen. Mm-hmm. su ma leen représenté ma ñëw rendre leen compte. xam nga li ñuy wax redevabilité parlementaire. Mm-hmm. mooy nit ki aussi nga ñëw nga fal ko fenn. mais mu ñëw ñoom lu ñu waroon def waa Benno Bokk Yaakaar ko ñoo fi gagné mooy ñu ñëw ñu ne ah ñun dey cinq ans yi passé li yëg lii lañu liggéey yal Thiès li yëg lii la taxaw su doyee nit ñi ñu xayma ko ne ah ñun dey ñii moom député yi moom baax nañu. te loolu xam nga ni ñoom ñemewuñ ko def parce que xamuñu leen sax donc li ñu liggéey baaxul nit ñi waruñu di fal nit ñi parce que Benno Bokk Yaakaar la walla président la wala APR la déedéet dañoo war a fal nit ñi xool njëriñ bi ñu am te ñu jàpp naa ni amuñu benn njëriñ donc dañ leen war a dindi def fi ñeneen. ñeneen ñoo xamante ni nit ñi am nañu yaakaar ci ñoom ci seen njub ci seen maandu ci seen mën liggéey ak ci seen bëgg réew mi. dafa mel ni nag loolooy problème mu Sénégal ndax du ñu voté euh, par programme dañuy voté par yaa ma neex. dañuy voté par yow laa bokkal euh, nga defee ni loolu tànk mi ngi am fi mu ne nii euh, ñi ñuy yabal suñu pencu ndawi réew ma dinañ fa am njëriñ ndax bu ñu gisee assemblée bi ni mu ni mu demee nii bi ci bi ñu weesu ni ay xuloo ay xeex ay magum jëmm nekk ci assemblée ñu dénk leen suñu baat ñu war a xool naka la ñuy saytoo mbiru réew mi ñu nekk fi di xuloo ak di tamante dem. soxna Awa Fall gis nga foofu euh, poñ bu ama am solo nga yëkkati foofu mooy benn bi. mooy ñun ni ñuy tànnee ni ñuy voté euh, sànq maa ngi doon wax waxu vote utile euh, il faut ñu xoolaat ko euh, parce que suñu xoolee ñun depuis indépendance ba léegi nii hmm, ban njëriñ la vote yi am est-ce que am nañu danañ am nañu ñaari alternance mais est-ce que am nañu alternative alternative mooy changement dëggantaan waaw ñu toog ba xam ni li fi nekkoon changé na mais day am changement ci régime yi mais day am benn continuité ci pratique yi même pratique yi ngay gis fu mu toll nii man mairie yi yi yi nga xamante ni ñoom la ñu changé actuellement euh, ay aide ay ay ay man li ma gisagum lu ñu gën a def mooy ay aide ay ndimbal ah mm-hmm. loolu nit ñi il faut ñu aider leen mais nit ñi aider dimbal bu gën a am solo mooy nga dimbale leen seen seen dundin changé pas dem ay saaku ceeb ay koor jot naag ay tabaski jot naag yooyu loolu. je pense que loolu ci politique bu bu bu yàgg la loolu wut clientèle politique la. Mhm. wut clientèle politique wut ñu lay votel mhm. te du looloo taxoon nit ñi di changé loolu nag suy am nit ñi dañuy xool def bilan. Mhm. tey jii soo toogee jeunes yi ñan ñooy seen référence Cheikh Anta Diop. Mhm. Mamadou Dia ñooñu ñaata ay 1 pour cent 2 pour cent lañ doon am. lu tax ñun suñu papa yeeg suñu maam yi fi nekkoon mais daanuñu woon votel ñooñu mais dañuy xool nit ñoo xamante ni populisme la ñuy def. Mhm. nit ñuy wax lu leen neex wala ñun ñi nga xamante ni dañuy jàppee ni dañoo mën politique. Mhm. man ñenn ñi sax dañ may naan yow mënoo politique ngay bàyyi parce que affaire yi parfois del wax lu neex nit ñeeg yooyu mais loolu il faut mu jeex nit ñi aussi mënuñu bëgg changement. di continuer ci même pratique yi chaque fois. te gis nga vote utile bi ñuy wax. dafa am benn euh, góor bu baax euh, imam Pam Mbay la tudd muy imaam jàkkaay Alpha Combaan benn jour dañoo toog ci benn ngénte muy wax. wax bi muy wax notion vote utile mooy lan moom nan la jàppee vote utile bi mu ko waxee eh, ma ma demaat këram ba ma ne ko bëgg naa déggaat bu baax li nga wax parce que c'était intéressant mm-hmm. mu ne ni nit ñi jàppee vote utile Sénégal moom du noonu la jàppee vote utile mm-hmm. parce que vote utile du rek votel koo xamante ni ci biir opposition bi jàpp nga ni kii moo gën a am chance pour gagner bëgg nañ fi jëlee ñu fi nekk naa votel kii nga xamante ni jàpp naa ni moom moo mën a gagné mais xooluloo kooku euh, est-ce que am na qualité intrinsèque yi homme politique war a am. mu ne vote utile mooy nit ki ci boppam xam nga yow lan ngay wut ci homme politique yan qualité nga ci soxla war na jub war na maandu. war na mën liggéey war na wane bëgg réewam war na am courage yooyu yëpp nga xool ko nga ne man yii laa xayma nga xool nag ci candidat yi soo ñëwee ba ci ba ci eh, kii bi soo jëlee nga dem ba ci mbañ gàcce bi nga ne man ñii ma jël ñii ñëpp du ma ci xool sama mbokk duma ci xool sama dëkkandoo duma ma ci xool suñu xarit duma ci xool ku ku gën a am chance pour gagner damay xool sama digganteeg yàlla mm-hmm. kan moo ci gën a remplir ces critères là nga jël ko nga dugal ko foofu yow ak sa diggante sa diggante ak yàlla nga ne man de def naa sama devoir votel naa ki nga xamante ni jàpp naa ni kii moom mooy njiit bu gën ci man loolu soo ci génnee ñépp suñ doon def noonu di xool ay critères objectif jàpp naa ni li ñu bëgg li ñuy jooy ba léegi euh, amuñu ko danañ ko mën a am danañ am njiit yoo xamante ni jub nañu maandu nañu ñi nga xamante ni aussi bëgg nañu réew mi. jërëjëf ci tontu bi léegi dañ leen doon laaj lan mooy seen programme de législature. waaw gis nga euh, soxna wa ñun mhm. kontaan naa ci laaj boobu. Mhm. parce que xam nga fu mu toll nii huit coalition lañu. Mhm. huit coalition dafa am nag foo xamante ni parce que concurrence lañ nekk. su fekkee objectivement. yeneen sept coalition yi raw nañ leen lu bëree bëree bëri. ci naka. waaw dañ leen raw nag ci fu bëri. ci programme bi nga wax. ñun am na weer ak genn walla ci gannaaw dañoo ñëw taxaw man nekkuma fi woon mais suñuy ñi nga xamante ni ñoom ñu leader coalition yi man dama tukki woon. ñu ñëw teg li ñu wax contrat de législature ñun projet bii programme bi ñun suñu nekkee député. ci fànn yii la ñu bëgg a liggéey ñu def 14 programme bi ñu ngi ko tuddee 14 14. quatorze poñ mhm. pour la quatorzième législature quatorze poñ pourquoi parce que xam nga politique dañ cee war a dugal dëgg nit ñi su ma moment euh, promesse jotee lépp lu ñu xam ni préoccupation sénégalais yi rek dañ koy dugal mhm. et il faut ñëpp gis ci seen bopp parce que ñu ngi bëgg dige loo xamante ni wër nañu ni suñu jotee duñu ko mën ñun ay engagement la ñu jël ñu ne ñun 14 poñ yii lii mooy ay priorité parce que soo mënul aussi wax ci lépp dangay xool li nga xamante ni jàppee nga ni ay priorité la ñu jël ci engagement mm-hmm. ni yii danañ ci taxaw su ñu nekkee député danañ ci taxaw pour mu am ay réformes mm-hmm. walla ñu voté ay loi yoo xamante ni dana indi changement ci côté yooyu mm-hmm. bi ñu ko defee ba tey nii amul beneen coalition bu ñëw teg programme ñun programme boobu soo demee ci internet Aar Sénégal ñoom rek ñu indi programme bu mel noonu donc loolu wax dëgg yàlla euh, ci suñu concurrent raw nañ leen foofu. feneen aussi fi ñu leen rawee mooy man suñu waxee coalition Aar Sénégal rek nit ñi ñaari mbir la ñuy wax. yu am solo ah ñii de ñu crédible lañu waaw ñu crédible lañu. Mm-hmm. ñu ñu ñu compétent lañu. Mm-hmm. waaw loolu tamit am na solo. Mhm. ñun coalition Aar Sénégal doo ci gis kenn ku kuñ ci mës a baaraam ne kii jël na alal réew mi wala kii biñ ko joxee lii nii la ko defee nee la ko defee neneen la ko defee donc ay nit yoo xamante ni lañu wóolu nañu leen am nañu jaar-jaar te seen jaar-jaar boobu aussi wane nañu ni bëgg nañu Sénégal. <laughs> Hmm. Euh, suñu tête de liste Thierno Alassane Sall ñëpp xam jaar-jaar bi mu am. nekkoon na fi ministre bàyyi pour la première fois ñuy gis ministre buy bàyyi ndombol tànkam pour intérêt Sénégal loolu kooku su ñëwee nee la man dama bëgg nekk député wax dëgg yàlla jàpp naa ni kooku war nañ ko wóolu. est-ce que du da nga gis sa bopp ci moom moo tax ba nga ba ngay dem ba ngay coaliser nga dem aar dem ci moom. waaw man man euh, loolu moom tamit laaj bu am solo la man am na ñoo xamante ni mënuma woon ànd ak ñoom. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. man élection mairie bi fi passé nii ñun dañoo nekkoon CRD. congrès de la renaissance démocratique ñun la woo ñoom Abdoul Mbaye ñoom Mamadou Lamine Diallo Tekki ak Thierno Alassane Sall mii ak waa LD Debout waa taxaw tem ak yépp mais bi ñu demee ba ne dañuy ànd ak waa PDS man dama ne mënuma ci man ni ma jàppee ni politique. Mhm. mooy nit ki ñun lan moo ñu dugal ci politique pour changer li fi nekk. ñi nga xamante ni gere woon nañu fii motul sax fukki at wane fi li ñuy li ñuy wane ba ñu jëlee leen fi wax dëgg yàlla suñu ñëwee par opportunisme parce que politique warul nekk rek opportunisme nan laay def ba gagné mais dafa war a am benn cohérence d'ensemble benn constance aussi waaw wax dëgg yàlla nit ñi war a ànd ànd waaw mënuma ànd ak n'importe qui wax dëgg yàlla donc ñun loolu décision boobu ñun li ñu génnee man li ma génnee CRD te loolu aussi moo ci génnee Thierno Alassane Sall moom mooy ni mënuñu woon ànd ak euh, PDS ci ci ci ci ci élection yooyu parce que wax dëgg yàlla li ñu fi war a jëlee ci politique bi ñoom participer nañu ci ñi ko ci ñi ko fi indi euh, régime bi nekk fii daf ko gën a yokk rek mais euh, c'est la continuité donc ñun puisque rupture la ñu bëgg rupture vertueuse euh, mbir yi changé dëggantaan li koy changé dëggantaan nag day fekk ni ay nit ñoo xamante ni la ci seen parcours ci seen taxawaay ay nit ñu bees lañu nit ñu bëgg réew mi nit ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla changement yu ñu bëgg mën nañu ko indil ci changement bi ba tey la ñuy des ban message ngay lancer à l'endroit des sénégalais yi nga xamante ni ñoo war a voter wala plus précisément. fi la intéressé muy waa Thiès ban message. waaw waa Thiès euh, ñun doomu Thiès lañu. fii la juddoo yaroo fii màggee fii dëkk fii. Mhm. fii lañ dëkk fii lañu ñu choisir ñuy tànn dëkk Thiès. Hmm, jàpp naa ni wax dëgg yàlla xaajaguñu dugg ci politique. Mhm. Hmm, parce dañoo bëgg Thiès. Euh, ñëwoon nañu fi nekk candidat à l'élection municipale. Mhm. yàlla def ni gagné wuñu waaye ne ñu am ci satisfaction bu mag parce que vraiment nit ñu bëree bëri lu ëpp junni nit ñun. ay junne on a eu des milliers de voix. Mhm. Euh, ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ci demandé Cees waay ne leen. ñun découragé wuñu loolu taxuñu ñu découragé. te jàpp nañu ni élection yi ñu jëm. nañu xool bu baax yan mooy critère yu ñu war a falee député est-ce que jàpp nañu question la rek. ñoom ñoo koy tontu est-ce que jàpp nañu juge dem mi nga xamante ni moom magistrat la woon mu bàyyi ngir Sénégal. Euh, léegi avocat la international cour pénale internationale est-ce que am nañ jub maandu compétence ak bëgg réewam bu doy pour mu war a mën a nekk député waa walla déet est-ce que voté liste aar Sénégal soo xoolee ñu ci nekk Thierno Alassane sal docteur Abdourahmane Diouf euh, Théodore Montey Thierno Bocoum Marème Soda Ndiaye euh, Cheikh Oumar Sy ak ñeneen ak ñeneen est-ce que ñooñu mérité wuñu parce que ñooñu soo xoolee am na ci ñaar ñi ñi ñi fi nekkoon député ci douzième législature mooy nu Bocoum ak Cheikh Oumar Sy nit ñi gis nañ ci seen taxawaay législature actuelle Théodore Monteil ak Marème Soda Ndiaye wane nañu ñooy député yu ci gën a taxaw euh, Cheikh Oumar euh, euh, Thierno Alassane Sall nekkoon na fi ministre nit ñi gis nañ jaloorem Euh, Abdourahmane Diouf nekkoon na fi directeur SONES ñun ñi gis nañ jaloorem jàpp naa ni ñooñu kenn naa taablewul ni seen parcours am nañ xam-xam bi am nañ jub bi am nañu maandu bi am nañ bëgg ni ñu bëggee réew mi te mérité nañu sénégalais yi votel leen suñ leen votelee aussi changement yi ñu bëgg jàpp naa ni dinañ ko mën a am léegi noo jàngatee communication politique bi jamono ji ndax bu ñuy déggee yenn politiciens yi di wax dañuy sentir benn violence bu ñuy dégagé wu parfois sax da ngay da jàpp ñu ngi attaqué benn benn communauté wala benn ethnie naka nga jàngatee communication politique bi de waaw ñun ñun ñun dañuy taxaw man gis nga suñuy fàttaliku man sama dugg politique mm-hmm. man fii laa defee sama lancement mouvement stade Maniang Soumaré sama discours lu ci gënoon ñëw mooy soññ nit ñi ñu bàyyi violence. parce que xam nga soxna Awa Fall Sénégal euh, lu gën a bon mooy nit ñi muy am répétition ci même erreur yi. 2011 ñaata nit a fi gaañu pour ci démocratie xeex nañu gaañu nañu def nañu ay sacrifice loolu kan moo doon ànd ak ñoom biñ koy def président Macky Sall mii. Mm-hmm. ñëw di nekk ak ñoom place de l'Obélisque ak yooyu bi mu ñëwee nekk fi est-ce que moom bàyyi na xel ci loolu ba démocratie bi ba liberté publique yi mu gën ko taxawal walla dafa gën a yokk répression man li may wax foofu mooy bakkan dafa foor mm-hmm. dafa foor trop war waruñu foowee bakkan te politique bi wax dëgg yàlla nit ñi man jàpp naa ni mën nañu am lu ñu bëgg te duñ ko def ci violence man dama koy assumer gis nga marche bu ñu interdire duma ma fa dem c'est pas parce que ñii ñi fay dem dañ ma gën a courage man dama ne man ci sama politique bëgg naa dugg politique ba génn ci du ma nekk directement ou indirectement le responsable de la mort d'une personne parce que sacrifice da koy jar ñun ñu ngi ci démocratie boo xamante ni motul dellu na gannaaw ci at yi yaakaar biñ ci amoon amuñu ko maintenant seule compétition foo xamante ni nit ñi war nañu parce que on a un système électoral boo xamante ni c'est crédible wane na ko am na fi ñaari alternance élection locale yi wan na ko fépp fu opposition bi am doole day gagné parce que système électoral bi ci yu gën a baax ci monde bi la bokk mën na assurer changement lépp lu ñuy bëgg ñun nañu wut jéem a tànn ay njiit yu baax saytu leen nag xool leen bàyyi parparloo ñu bàyyi parparloo man kii laa faral ki nga faral ki da nga koy saytu xool ko Ibrahima Dem moom laay faral mais maa ngi koy xool mais su changé ma xam ni kii kii nga xamante ni su waxee lii tey wax la la suba mais loolu àndul ak njub àndul ak maandu. kooku mën nga yaakaar ci moom ni su jotee pouvoir bi day changé nit ñi bu ñu foowee bakkanu sénégalais yi man loolu ci li ma gën a metti ci politique sénégalaise ci la bokk parce que bakkan dafa fort maintenant ñi fi nekk nag jiite réew mi ñoom ñooy les responsable la première responsabilité bi ñoo ko am dañoo hérité d'une démocratie ñu hérité réew mi fu mu am fu mu toll ci ay liberté publique ñoo ko war a taxawal ñun ñeneen ñi nekk opposition ñu am sago continuer le combat suñ ko continuer am sago sénégalais yi ils sont suffisamment mûrs ba li nga xamante ni eh, ñi fi nekk moom lañu bëgg ay troisième mandat du fi mën a am munu fi nekk parce que sénégalais yi duñ ko nangul kenn nanguluñ ko Ablaye Wade du keneen lañ koy nangul mais loolu élection mën na ko régler loolu mën nañ ko def pacifiquement man de loolu mooy sama choix ci politique politique koo gis choix la donc jàmm su ñu amee dara loo xamante ni lu ñu ëppal solo ci réew mi moom mooy jàmm jàmm yàlla na wéy ñëpp ci lañu mën a gis seen bopp suñ ko defee ñu continuer nos combats euh, de manière pacifique euh, su lu mu jar nag ci loo xamante ni du ay sacrifice humain danañ ko def pour que démocratie bi mën a gën a dëgër mm, loolu mooy sama mm-hmm. ñu laaj la tuuti sa xalaat ci situation économique bi nekk ci dëkk bi jamono ji surtout ñu ngi koy assimiler ak guerre bi nekk Ukraine te yaa ngi cour pénal international yenn yenn matuwaay la ci cour pénal international nar a gis nga euh, soxna Awa Fall gis nga euh, guerre Ukraine bi nga wax ak yooyu man ak situation économique bi nga def. Mm-hmm. lien boobu dafa am solo man bi ma demee Europe am na weer. Mm-hmm. def naa juróomi réew. Mm-hmm. réew yooyu yëpp dañoo dépendroon ci Ukraine ci blé. mais li ma gis mooy réew yooyu yëpp. ma dem euh, Hollande Belgique France Italie Suisse. dañoo commencé changer ñoom ñu ngi commencé guerre bi dafa def benn weer rek ñoom ñu commencé di béy blé man su ma toogee ba gis président Macky Sall dem au nom de l'Union africaine dem Russie di di di yelwaan pour nañu bàyyi eh, guerre bi nañu bàyyi blé bi dugg ak yooyu mais amul défaite bu gën a mag boobu amul défaite gis nga tant que amuñu souveraineté alimentaire li ñuy lekk ñu koy béy fii loolu nag état bay poser condition yi man fuuta li ma fa jógee motul euh, euh, fukki fan aménagement yi fa war a nekk gouvernement bi chaque année dañoo ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz mooy ceeb lépp li liñ fiy lekk ci ceeb fii lañ koy béy mais xam nga presque moitié bi lu ñuy lekk moitié bi ci biti lay jóge depuis 2017 la ñu waxoon donc gouvernement boo xamante ni lu mu wax du ko def dañuy dugal milliards ci benn secteur boo xamante ni secteur vital la mais milliards yooyu c'est pour enrichir ay nit paysans yi duñ ci jot. aménagement yu bon a bon paysans yi lu ñuy xaar rek moom mooy ñu defal leen ay aménagement ñuy am ndox am foo xamante ni ñu jox leen ay semences yu baax ñu béy nit ñu jeune ñu bëgg liggéey ñu ngi fi. loolu su amee lajj bu gën a mag ci lajj yi nga xamante ni président Macky Sall gouvernement am lajj nañ ko ci côté boobu la souveraineté alimentaire loolu war nañ ci taxawul le plus tôt possible parce que secteur primaire yii muy agriculture mbéy muy napp muy càmm loolu suñ ci deful ressources yu doy ba nit ñi ci nekk jot ko mën a ñu mën a am autonomie jàpp naa ni wax dëgg yàlla euh, développement du mun a am dañuy jël rek ay mbir di ñu naxee ay yoon ay TER ak yooyu du loolu moom mooy développement développement dëgg moom mooy secteur primaire bi ay artisanat ak yooyu ñu développé ko jox leen ay moyens ñu mu gën a xarañ ba sénégalais yépp ñi nga xamante ni presque soixante di pour cent quatre vingt pour cent bi ñu ngi ci secteur primaire bi ñooñu suñ ci gisee seen bopp bopp rek secteur boobu su développé rek. Mhm. Sénégal mën a mën mën a développé. léegi maître kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw di leen sant di leen gërëm. Mhm. di kontaan ci interview bi ak ci qualité bi interview bi wax dëgg yàlla ci laaju am solo yi di leen di encourager ci. seen euh, télévision bi ngeen def euh, wax dëgg yàlla euh, nii la di di leen ñaanal aussi di ñaan yàlla élection yi di ñëw ñu def ko ci jàmm jàmm gën lépp ñu tànn tamit ñu gën ci ñun yàlla na yàlla def ñu gën ci ñun ñu ci gën a jub gën ci maandu gën ci am yéene yu baax yàlla na yàlla fekk ñooñu ñooy falu parce que suñu amee ñu gën ci ñun rek ñu bëri dinañu noppalu ci politique bi parce que dinañ xam ni réew mi jox nañ ko ay nit ñuy wóolu nit ñu wóor euh, ñoo xamante ni danañ liggéey lépp nag mënul jeex lépp mënul pare mais yaakaar bi ñu yaakaar rek mooy nit ñi ñi fi teg danañ nekk nit ñu bàyyi xel ci coono askan wi askan wi sonn nañ lool ñi nekk ci dëkku kaw yi dañoo sonn lool lool lool lool lool dafa mel ni dañ leen di fàtte te jàpp naa ni su ñu amee ay njiit yu am yërmande wax dëgg yàlla danañu gestu ñooñu ba seen jafe-jafe même su yëpp jeexul yu ci gën a bëri danañu wan gannaaw maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam ñu ngi lay sant aussi di la gërëm bu baax a baax di la jaajëfal ci dalal bi ñu dalal fii sa kër mbokk yi téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon ci vision politique ñu àndoon ceeg Ibrahima Hamidou dem nekk avocat à la cour pénale internationale nekk membre ci Aar Sénégal euh, ci caméra caméra bi Doudou moo nekkoon ci caméra bi ñu koy sant bu baax di ko gërëm ak. toute l'équipe de RTT TV Siré Marigo ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax tonton Adama Diallo tailleur marché xel ga ñu ngi koy sant aussi tonto Pam Ñong depuis les États-Unis aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ba beneen incha allah merci